Pikine Kër Massar Thiès Louga Saint-Louis Kaolack Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn koo ko mën a defe ci Touba euh, waaye man ci Ndindi laay wax nga ñëw ba Ndindi màggale si fi li fi màggal Sëñ Touba war nga boo jógee fii ba dellu ku la xool xam ne nit kuy dem Ndindi di màggali Sëñ Touba mu ngi nii ci ay doxalinam waaye jóge jóge jóge Ndindi màggal fi sëñ Tuubaa te ku la xool lu ko xam ci yow ci say melo loolu taxul ñuy màggal màggal lañu wax falul li sa xarit nga def ko sëriñ di màggal sëriñ Tuubaa di dal di dellu nii la war a mel loolu la la la di di wax ngeen dolli ko ci li ngeen fi dégg kenn ku nekk daal euh, lim fi gis ak lim fi dégg da ko war a def sëriñca ndax nit bu bu bu demee fi barab tukki buy buy buy ñibbi dafa war a yóbbaale sëriñca sëri moom lañuy ñuy séentu ci yow ñu ña nga fa bàyyi saa ne boo tukkee la ñuy séentu ci yow sëriñ ci booy ñëw sëriñ ci màggalu Tuubaa nag ci Ndindi sëriñ ci am loolu moo wax rek koo dem rek euh, bu boo waxee ak moom rek mu bég nga di ko warmal di ko sutural ci ay wax bu fekkee wax ju baax wax ju rafet nga doon fekk ak moom ba yokk ko bu fekkee da daan wax moom te wax ci lu wax lu rafet bu wax kii nga nga tax nga dindi loolu te doxale sa diggante ak moo wax ju bañ a teqatal kenn mooy ku ko koo gis mu di ko def rek daaneel la la bëgg da ngay gis nit koo xam ne day toppatoo ay soxla yoo xam ne lam ca la tax mu di ko toppatoo mooy ter ter ter di teel liñ cay eh, teral ci ay njabootam moo xam ay soxnaam ak i doomam ak i xaritam ak i dëkkaaleem nga xam ne loolu dox na koo doxatoo ba nga xam ne sotti na daanaka te bu sottee lii ma wax rek lay jële muy taranga nga jaar ci suuf teewtal da ngay gis eh, gànneem aw xewet na ajuma yëpp doon nelaw ndax yàkkam waxtu yu jot ba nga dem lañ la diggoon nga jot ci ba ñëw def def def ci terle ci fekk nit jaar na fa wala yàq yàq yàq yàq ba ba ba ba si gaawu yoon nga ñëw ak sa yaakaar fekkee nga waxaloon soppiku na bu yàgg te doo xam ne mu doon fekk na waaye fa jaar teqatal teqatal la yooyu yëpp dañ koy moytu tey waxante lu baax kenn ku ne di defal sa morom wax naa leen ne leen kenn ku ne ma bi ak ci doom yi boppam ak ñi nga xam ne ay waa këram ñooñu laa jublu ku ci daf la jox ci waa kër sëñ bi lañu taalibe sëñ Tuubaa lañu bu jógee fii daal dañaa war a doon seetlu ndindi mm. bu jógee ndindi görüşürüz. waaw ñu ngi gërëm itam nag nag bu baax nag ñi nga xam ne ñoo ñoo fi indi seen télévision yi ak rajo yi ndax télévision yi ak rajo yi indi gi ñu leen dell ci bis yu mel yi jubluwuñ ci dara lu dul bëgg a yàq lu baax rek te loolu moo moo rafet lu baax dañ ko war a yàq li mu gën a yàqu gën a sori ñu ngi ci gërëm